démb dama damaa déggante ak Petit Niang ma ne ko suba bise demee laay seeti mu ne ma kooku nit ñi dañ koo fàtte woon fi mu toll nii maa koy yokk coow bës bi mu bëgg nii maa man maa ko koy may soo demee ne ko bës bi ma koy may na ma ko santee moom. moom est-ce que boppam. ah moom kañ la gëj a bëri. moom ah. moom est-ce kañ la mu gëj a bëri sax est daaw. déedéet non daaw bëriwul daaw dafa année balance. def na ñaari at deux ans année balance maa ko mujj si géew. te tey bu ñu ne woon taxaw bu ñu ne woon brise bu ñu taxoon sama affiche ak man man ak moom la ñu def photom ak sama photo wër di micro territoire di laaj gars yi kii mooy kan kii mooy kan mais mais petit ñaan ñi xam nañ ko de billaay wallaay dama lay wax rek dëgg te yàlla tax xam nga man tey man dama ne ko keroog junior tour contrat bi dama wax loo xam ne nii duñ ma tàllaat micro mukk may wax leneen champion la mhm. ndaanaan la moo tax ma jël ko bu defuloon dara si làmb du ma ko jël mais li mu def moo tax man ma jël ko def na dara champion la moo tax ma jël ko brise du bëre ku dul champion de du bëre ku dul man hardcore yi laa soxla mais dama gis dama gis nga taamu ko. te bi nga koy taamu tamit bi la laajee dafa am loo wax ki nga xam te ne moo di Anta maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom sama waay la. dama dégg nga ne ko dañ ma tegal ñett mais man maa ko ci taamu nga ëlbatiku ne li muy bëree mooy day day day forcer di jéem a jaay doole di forcer. est-ce que nekkul da nga xalaat ne buy forcer war nga koo mën a nax daan ko. waaw parce que ñi ko daan yëpp loolu lañ ko daanee ñi ko daan yëpp dafa forcer ñu daan ko. da imposé doole su ma ko doon yóbbante ak conseil ko dama naan ko mu bëree technique ak doole ak mën a bëre hmm. Petit Niang. <laughs> mën na bëri de. yaa ma gën a xam Petit Niang. wallaay wallaay bàyyi ma ci xel <laughs> pour ndax mën na bëri de trop de trop nii. en tout cas man waruma mën a gis man lu ma jaaxal si Petit Niang en tant que brise de mer. mais est xam nga ne xale la boo xamante ni bu jugee ñëpp dañ koy ëmb. muy waa Kër Massar waa Boune waa Fass Mbao nga ñëw jël ko te moom fi mu toll nii dafa fonk làmb ji. dama koo seeti àjjuma. mënuma ñoo ngi def suma combat brise de mer Euh, yaakaar naa samedi bi xaw ma dimanche mu woo ma dama làmb ji taxaw na. taxaw na waa loolu loolu moo am solo tey tey loolu dama koy ñaanal yàlla mu gën a yokk waa Boune di ko gën a jàppale parce que tey nit amul lu dul gorom goxam. Hmm. léegi bu fekkee man maa ngi yeewoo Grand Médine moom mu yeewoo Boune ñu ne ñaari doomi gar ñaari doom yi euh, boole nañ leen doomu Grand Médine ak doomu buun hmm. waa Grand Médine jóg di ma jàppale waa Boune jàppaluñu ko non kon waa Boune defuñu lu leen war waa bu ñu ko jàppale waa Grand Médine ko non kon defuñu parce que ñun ñëpp ay jeunes lañ ay lañ te danoo war dañoo laaj jàppale ñooñ dañu ñu war a jàppale dañu war a nekk si supporters yi lay lay lay ñaax dañoo war a ñëw nekk suñu ginnaaw parce que ay tey tey benn Brise Mer tey nekk si làmb ji tey nekk di yeewoo Grand Médine di mbuboo doomu Grand Médine mais balaa supporters yi balaa supporters yi est que xam nga ne làmb ji yow yaa euh, mën a wane loo xamante ni supporters war nañ cee mën a teg seen bakkan bi parce que tey bu ñu bu ñu dee làmb man man man parce que maay waxal ñi nga xamante ñooñu seetaan parce que ñoom sax dinañ commentaire ñoom yow yaa gën a soxla làmb ji mën naa ne tax da nga lu bari ci làmb ndax tey fi mu toll nii moom même bu ñu waxul yow ak Sa Thiès waxuñu yow ak Ama Baldé waroon nañoo mën a wax ne kat ay yow ak Lac Rose wala yow ak ñi nga xamante ni jege nañ foofu mais boobu ba léegi bëri nga fekk boo ñaate boo ñaate ku ne gis na ne ma combat moo tafaatin taxaw na nga ñu wax yow ak Petit Niang est-ce gënoo soxla làmb ji que Petit Niang voilà dañuy taxaw signature contrat bi mu ne moom fi nga ma baaxul parce que dama damaa soxla damaa soxla ndam ma ree jàpp ma. mu ne moom fi nga ko jëlee yow baaxul. mu ne ma ma ko jëlee moom parce que dafa dafa soxla ndam. ma ne ko euh, till da doon soxla yàpp. Hmm. ba for benn pooj fekk gaynde di nelaw mu yee oh. ko. mu dee. dañ koy nangu ma lépp lu mu soxla ci làmb yi maa ko gën a soxla. lépp lu mu soxla ci làmb ci wàllu ndam. mais nit ñi dañuy gis dañuy gis Brise de état de forme bi du changé chaque jour day maintenir parce que boo xoolee bu ñu andee 3 ans 4 ans ci ginnaaw ba loolu ngay kii gars yi nag est ce que entraînement bi moo koy teg ci yoon. waaw ay temps ay temps dama doon làmbatu mais ba ma dalee fii maa ngi sant yàlla bu baax ba ma dalee fii ba léegi maa ngi sant yàlla bu baax benn Brise de Mer jàppale bi des na lu baree bari jàppale des na lu baree baree baree baree bëri ñun dañoo nekk ay autorités yoo xam ne dañu war a gestu mais jàppalewuñ ñu dañuy war a jàppale Grand Médine suñu mbër yi nekk champion yu nekk Grand Médine loolu mooy seen problème ay ndaanaan fa nekk ay boy yu mën a bëre ay jeunes yu xam ne nii talent yoo xam ne nii muy lépp nag muy boxe bi am na ay boy yoo xam ne nii ay boxeur lañ nekk ci dëkk ba ñu war leen teg loxo ay boy yoo xam ne nii ay leader lañ yoo xam ne ay mbër lañ ay lu ne fa mais jàppale moo des Grand Médine booy ñun ñun loolu moo ñu jàpp Brise Mer ba nga koy xamee ba léegi mun naa ne sama jàppale mu bëriwul amul mën naa bu fekkee sax amul jàppale lépp maa koy defal sama bopp lépp samay combat da fay kaar ma génnee li nga ma fay yëpp da ay ko xaalis li nga ma fay yëpp ma jëndee ko kaar jëndee ko billet jox ko yi ñu dem stade ma ñëw toog parce que maa bëgg làmb man làmb ba ma koy ba ma si dugg dugg ma si ngir xama dama ko dugg man dama si dugg ngir deret ci man dama bëgg làmb man dama ko doon fooyee nga ne tey sa bi boo ci defee benn për def ñett. lu ci mëntu def moom la conseil mais bu at bi man li ma indi mooy li ma gëm mooy ndam rek wallaahi si gëwuma leneen lu dul ndam. billaahi wallaahi lépp lu soxla ndam man moo ma ko gënal na ma yàlla may ndam rek waaw. <laughs> damaa gis damaa gis ni ngay waxee ma xam ne da ngaa bëgg làmb ji. te ni ma dégg Petit Niang muy waxee dama ko bëggoon a waaye moo tax combat bi saa dafa tëgg lu lu doy waar. barki sëy naa ma dafa tëgg lu doy waar parce que booy bi dafa jógee si defet ma jógee si defet booy bi waa gorom am yaakaar sama waa gorom am yaakaar si man. ba pare te moom woon taamu ne man maa bëgg a bëre Brise de Mer mais au contraire yaa na ko kaa ñu bëree. waaw parce que tey benn promoteur dafa ma woo ne ma diw ak diw ak diw ak diw diw laa soxla laa tegal ma ne ko jox ma diw mu ne ko lu mu ne ma lu tax pourtant diw ak nii ma ne ko diw laa bëgg jox ma ko parce que lii laa gisoon ci làmb ji soog bii waaw soog bii billaahi wallaahi tallaahi soxla naa làmb ji trop. te képp ku may jàppale maa ngi lay tàllal loxo ci combat bi ni nga jàppale ma waaw. di sant yàlla nag bu baax te xam na ni am na ndaw yu nekk Grand Médine ay ndaw yu nekk li ma koy waxaat nga may ma rek ma wax te yàlla tax te lii dama bëgg gars yi déglu ko. Mhm. waa Grand Médine nañu bokk ndey bokk bàyyi te xam ne ñun ñun rek la suñu dëkk bi amul keneen waa Grand Médine jeunes yi nekk Grand Médine xoolal tey lii li ma li may sol nii amul amul amul amul ragal fu nga jëm. Mhm. bu ragal fi nga jëm. ay jeunes yu nekk Grand Médine ñoo koy ubbi ku si mel ni Abdou Gueye ak Ismaïla ay booy yu ndaw ubbi ko xoolal di laaj loxo nag di laaj jàppale booy yi da ngay gis tey da ngay gis ñu génnee lu rafet tey fi nga xam ñàkk a gëm sa bopp fi mu nekk a commencé tey man sama waa dëkk di génnee lu rafet ma war fii sanc di génn ma génn si bàyyi dem ci ay bitig yu seer di jënd foofu noonu te tey sama waa dëkk tey di yor loo xam ne nii tey man su ma ko jëndee mu delluwaat suñu dëkk. pourquoi du ma ñëw jàppale booy dëkk yi. ay booy yu am jom. ñun noonu lañ mel dañu nekk si dëkk bi bëgg góorgóorlu jàpp gis ñoo xam ne ñu ngi ñu romb di jàppale ay yeneen mbër yoo xam ne ni dëkkuñ ci dëkk bi. te ngeen nekk te ñu nekk si dëkk bi mais leen warloo ak yéen ñoom yéen a yéen koy sàmm wala yéen a ngi koy doxal. ah bayfaal baa ngi nii de bayfaal bi moom loxoom ca kaw boo doxoon tey wala nga jël micro trottoir xale yu ndaw yi ñoo lay njëkk a seedeel kuy brise mer billaahi xale yu tu tànk yi ñoo lay njëkk a seedeel kan mooy brise mer benn ñëpp laa jox cër ñaar xale yu ndaw yi ñoo may ñoo may tardeel fu nekk ñett lu waay woote Grand Médine maa nga ci damaa dem bañ na dafa ñàkk fayda ah kon nag waa Grand Médine jàppale leen seen doom ndax xam naa ne comme li may waxee nawetaan ni mu mel ci tëkk bi noonu la làmb mel ndax nawetaan koñ boo dugg bu ne am na équipe waaye làmb fi mu toll léegi koñ boo dugg bu nekk am na bër te defe naa ne waa Grand Médine war nañoo jàpp ci làmb ji ndax bokk na ci li lay boolewaat ci làmb. waaw bokk na si li may boolewaat si làmb te tey man sama ndam ñooy seen ndam mooy seen ndam. di génn ñu ne sa booy bi nii ak tey koo mëntu jàppale bu ñu wax boo ne foo dëkk nga ne grand bi sa booy bi la ñuy wax kon sa booy bi puus ko boo ko puusee puusaloo kenn sa bopp nga puusal bul gis Brise de ak jikkoom parce que ku ne yàlla bind rek am na jikkoom am na jikko bul gis Brise de ak jikkoom nga nga jàpp ko si jikkoom ba tax defaloo ko non da ngay defal nit ngaat nit parce que bu dul dara sax tey man su ma bonee si yow am na tey benn booy bu baax si yow koo xam ne ni booy boobu mu ngi lay defal loo xam ne ni tey jar na nga jàppale Brise moo tax buñ bokkee ndey bokk bàyyi dëkk bi dem si kanam ay ndaanaa na fa nekk billaay boo duggoon grand bi di nga xam ne booyu ndaw yu ndaw yi sax koo ci song mu mbot la bëri rek la def ñëpp a mun bëri parce que tefes bi lañ dëkk dañuy fooyee bëri. mais est doon gis dinañ ko gis si làmb ji. est xale bu ndaw laa ñu ngi jàpp ne brise daa mayee sens yooyu noonu sëñ bi man ës moo ma tere moo ma a bëri teel a bëri ba may bëree ji may yebal sama dëkk pour ma yekku sama at pour mën a am carte d'identité pour ma licence pour mën a bëri dama yokk sama at xale bu ndaw la te balaa nga ko xam ni tey di xool ci kanam dinga ne dinañ waxaat brise de mer beneen brise de mer li war ci làmb maa ngi koy joxe muy entraînement teel a tëdd gëm sama bopp te yàlla def na ko même bu ma dawlul ay oto yu baax bu ma jorul ay kii tamit yàlla mu ngi def gëm-gëm bi ak xol bi ci man te bu soobee yàlla fi ma jëm dinaa fa yeggal suñu bopp dinaa fa yegg bu soobee yàlla Petit Niang dégg nga ni ko Bésame waxee nee na xale bu ndaw bu mel ni yow lay dajal kon bu yeboo nga waaj soo amoon kàddu yu mujj loo may wax ak looy wax yëpp waa Grand Médine loo leen wax ñu waaj làmb ji gannaaw sax tijjeegul waaye nag comme que yow da nga koo jël au te làmb ji taxaw ko loo leen di wax bon di wàññiwaat kàddu yi rek parce que bee passé ne def naa benn sortie ak benn site duma ma wax tur bi. commentaire yi bari na trop. gars yi di ko gisee nii ni ko gisee ne nit ku nekk ak tolluwaayam rek lay wax. te doomu aadama munul ñàkk ay faute mun na am ay faute bu amee sax faute bëriwul. mais mënul ñàkk faute tey da ngay xoolee sa bopp ba nga xëyee suba ba léegi munoo ñàkk def benn faute boo xam ne. ni nga toog xam ne lii waroo koo def suñ borom moo bind doomu aadama te matul nañ di xoolee suñ bopp nit ñi ku juum ñu xam ne dafa juum. yaa ngi dégg bu ñu ko defee rek dëkk bi kii mais léegi réseaux sociaux yi moo bari ba doomu aadama yi fu ñu toll nii ku si nekk yaa ngi yàq sa morom ci lii nañ delloo suñu xel si yàlla Petit Niang li ma koy wax mooy xale nga man xale laa xale moo tëgg suñu làmb ay xale ñuy seetaan si ak yi mag nañu wane fulla ak jom ba bis ba yàlla may man ndam di waxaat waa Grand Médine ñu ñëw seet si bitig bii dama bëgg nga lu ma ko parce que yow borom baax nga dama bëgg nga jàllale nga bul ragal fi nga jëm kooku dafa am lu muy signifié te boo toogee gars yi dañ la wax li muy signifié bul ragal fi nga jëm kooku dama bëgg gars yi bàyyi ko xel bu baax ay jeunes yu ndaw yu nekk Grand Médine Ismaïla Diédhiou ah Abdou Guèye ah, ay ñoom Modou ay gars yi dëkk biir Grand Médine ñoom ñaanduur xama xama waa fax gi waa mbaar mi waa France xama waa zem yëpp maa ngi leen di bëggee Brise de mu leen di ziar di leen bëggee di wax ne nanu boole xol yi ñu doon benn parce que on est ensemble ñun ñëpp ñoo far waaw nañ bokk ndey bokk baay waaw te ñu seeti booy yi ñu jàppale leen ay jeunes yu ndaw la ay booy yu ndaw yu créé di nekk seen gox di yëngal xam nga dañoo war a jàppale. waaw bu rang muy gaaw amul seral barki borom Touba. gis ngeen noonu lay demee bul ragal fi nga jëm nañ ci jàpp bu baax a baax ndax li may wax rek jàppal ma jàpp boo gis bu nee daa am ñu ci jàpp gis nga waa Gambie bi bëgg nañ cee jàpp moom tamit bëgg nañu ci jàpp nañ ci jàpp ndax gox ba lu ko jëmal rek lu ko jëmal kanam rek defe naa ne moo koy jëmal dafa am loo fàtte de. waaw dafa am lu ma fàtte mooy ki nga xam ne tey daf ma teg loxo te boobu léegi bàyyiwul. Hmm. di def si man équipement yu seer yu may sol yëpp moo ma koy jëndal muy Wagué Moussa Wagué international. ok fii lañ nekkoon. waaw mbokkoon saal man moom mu gis ma bëggal ma boppam jàppal ma boppam def ma mag waaw di def si man loo nekk lu ne ba tey combat bii nii daf ne lépp maa ko engagé waaw lu war rek woo ma wax ma te depuis boobu léegi mu ngi def. lépp lu mu lu mu mën di nuyu dine mooy xaritam bi xale xaalis maa ngi koy bëggee Moussa di ko ñaanal jàmm fu mu jëm Sénégal yàlla def def si jàmm di di nuyu nag Sénégindia bu baax di nuyu sama coach su Reda waaw club fighting box bi xam nga mu ngi ci jàppale ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi mu leen di jàppale bu baax a baax a baax mu ngi nee Reda coach yi nga sànni sa kàddu parce que xam nga bu dul dara sax def na si man loo xam ne nii tey gars yi ñu ma koy xoolee def na ci man loo xam ne nii tey Sénégal ñu mooy xoolee waaw def na si man technique tactique ak physique def si man lu bëree bëree bëree bëri il s'appelle Reda moo yor club fighting box bi mu ngi nii bismillah Kamu waaye santaat di gërëm waa Grand Médine rek leen woowaat waaw di sant suma booy yi may àndal ñoom Tafa ñoom Fallou ñoom Seydou Baye Seydou suma doom ndey waaw ñoom waaw gars ñoom Cheikh Cheikh Béthio suma gaayaan waa Dóor xam nga ñëpp waa waaw waa bul ragal fi nga jëm ñoom ab Gueye ñoom ñoom Modou Gueye ñoom la ñëpp maa ngi leen di sant bu baax ñoom ñaanduur waa Faqlan waa France waa mbaar mi waa télé bu bees ñëpp maa waa Grand Médine yëpp maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen woo si combat bi nañ si jàpp di sant nag suma coach su Reda waaw di sant Reda bu baax club fighting box bi moom moo ko yor mu ngi nii taxaw tungu ne du teew ñuy netaal dama lay bàyyi rek nga jox ko mu sànni ci ay kàddu moom lan laay wax ak moom anglais wala wala wala français. Ah, bon peut-être en français là une petite euh, paragraphe en français. <laughs> ok bon euh, c'est pas la première fois qu'on prépare un combat. Mhm. d'accord euh, il est passé de lutteur à boxeur. il a une bonne frappe maintenant, on a diminué le poids aussi, on a enlevé le, taux de gras. Donc là, on n'a que du muscle brut, d'accord, un bon cardio. et euh, voilà quoi on attend les challengers quoi xam nga gi muy bëreel. bien sûr. bu koy seetaan nga ko day ñëw waaw waaw toll nii réseaux sociaux yi moo tax kenn nëbbatul dara. bien sûr day dugg si bi di ko xool carrément di mm. xam lan lay liggéey man. waaye day xam lu muy liggéey gaaw na na mën na xeex te am na force bu baax mais koy waaje non noo koy waajalee moom. bon. tactiquement techniquement déet bàyyi ko moom mu wax boo ko ni noo ko waajalee olof yi day xaw kii mais bu la bëgg a wax man xam naa ne moom moom ku mu xool hmm. ku mu xool si YouTube ba xool sa préparation combat bu xoolee sa premier combat sa dernier combat rek dina xam lan la lay si ban voie la lay teg. noo koy noo koy waajalee masse ou bien coffre. c'est pas question de masse ou de coffre nous on travaille plus sur la technique on va trouver la faiblesse de hmm. chaque lutteur. Et nous, on travaille les points forts et les points faibles aussi. On les augmente, c'est tout. C'est très très facile. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose de difficile quoi. Après voilà, le reste c'est psychologique. Lui, il a un bon psychique, voilà quoi. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de très très fort, voilà quoi. Psychologiquement, voilà, il se laisse pas abattre vite fait. Donc euh, il reste juste à travailler un peu plus la technique et la rapidité et c'est fini. Djerna. Djerna. waaw bu jeexee jeex na. waaw ah, léegi làkk ci club boxum bi ak mu tolloog affaire yi noonu. parce que mu ngi yor ay ndaw ay jeunes yu booy yi ngay gis nii yëpp ay ñoom dafa ay ñoom fal ñu ngay gis nii mu ngi préparé ay booy ñuy def flamme ay booy yoo xam ne ni maanaam tactiquement ay booy yu ndaw da leen di entraîné ay mag ay lépp ñi nga gis nii yëpp gis nga ci suuf hmm. nu mu mel da leen di préparé dafa yor benn clubam boo xam ne ni club bu mag boo xam ne ni jigéen ak góor femme et tout da leen di préparer te ba pare ku si nekk da ngay am li nga bëgg day préparer nit ngay dem fu nekk. di ànd ah, dañ ci loolu dañuy bàyyi beneen ñoo yaatal ko. loolu tax ñoo jóg nuyu la mu nuyu wax ci wax ci ah. tuuti. bon alors je vais faire une petite présentation rapide donc nous on est le Fighting Club on est un club de boxe anglaise de boxe thaïlandaise de boxe birmane on fait du JJB et on fait du MMA et du self défense voilà. donc on est spécialiste en ça donc euh, on essaie de percer dans le mix martial art. Donc euh, de développer cette discipline ici à Dakar parce que les lutteurs et la lutte sénégalaise, c'est franchement c'est un sport très très complet Je pense que la majorité des lutteurs sénégalais peuvent devenir de bons fighters en MMA et en free fight en général. Donc euh, après on prépare, on a nos poulains ici qu'on prépare, voilà les momos, les tafa, les fallo, les isalai, voilà. Euh, ce sont de bons boxeurs qui, qui, qui voilà, certains d'entre eux, ils sont passés du taekwondo à la boxe anglaise, euh, d'autres, ils sont passés de, du karaté à la boxe anglaise et ils vont percer, Inch'Allah. Et euh, nous, on est là, on les prépare, voilà. Et euh, pourquoi pas les Jeux Olympiques C'est notre objectif. Okay. Voilà, représenter le Sénégal. Quand tu veux, Gaël. Ah. Quand tu waaw non dinaa ñëw. gis ngeen ni lañ koy defee ak Wassare Lamb. Wassare Lamb ni lañ koy defee fu mbër nekk wala fi nga xamante ne daanaka nekk na fa dañ ko seeti jëli ko waxtaan ak moom. kii nag dafay waaj combat moo tax ñu daw ñëw fii waxtaan ak moom ci lu jëm ci làmb beneen yoon ak yeneen mbër ci Wassare Lamb. aadama kontaan naa ci yow de guddi na lool waaye nag kontaan naa bu baax a baax. acca aada.